te dañoo jël kër gi gën a mag ci Sénégal dénkaane ko mayewuñ ko saraxewuñu ko kiñ ko dénk ñëpp xam nañ ko xorom naa ko ba xorom amatul Sénégal te du ma bàyyi de du bàyyi xam nga lu tax du bàyyi tant que ñun bi ñëpp taxawuñu taxawaayu Assane Diouf am fulla am fayda parce que jamono jamono dafa soppeeku jamonoy Serigne Touba dafa daje woon ay nit ñu am teggin Serigne Modou Moustapha même chose Serigne Fallou Senghor Abdou Diouf Baye Lat Ablaye Wade Serigne Saliou ba ci Alaaji Muntaha ah, Serigne Alaaji Baara Mbàkke tey ñu am Serigne Mountakha mu fekkee lépp nag ñuy ñii moo ñu gën a nekk activiste parce que li tax mu gën ñoo nekk sëriñ activiste Serigne Mountakha Serigne Mountakha seetaanul kenn kenn nag fii Sénégal seetaanul kenn loolu moo tax ñun jeunesse bi dañu war a am taxawaay xeex gis ngeen kii nii man defaluma dara dama bàyyi sama garage. bu ma déggee ñu def publicité bi laa yëkkati sama téléphone ma ne ko eh maa ngi ñëw Mbàkke parce que dafa am fulla am personnalité di liggéey pour sénégalais yi ba pare ñuy dal ci kawam bis bu nekk pour sénégalais yi moo tax sénégalais yëpp war a jóg jàkkaarloog ñuy dal ci kawam bu ko defee ñu jubbanti suñum réew parce que doxalin dafa soppeeku comme ni ma leen ko waxee léegi àdduna dafa soppeeku. te ndaw ñii ku ci nekk bu la nee sa dënn bi lu ci nekk nga ne Serigne Touba Serigne Touba da doon xeex dafa xeex ba ñu egsi fii ñu egsi xoolal jal nag bu fekkee ne dañoo tiim jal bi naan jal bi jal bi jal bi ku nekk di cibb ku nekk di cibb waxtu wu ne te teguñu dara ñun ci kaw jal bi dañuy dem ba dara dootu fa ne te ci jamono boobu lañu ñu moo tax xoolal Macky Sall dégage wax leen ko. Macky Sall dégage Macky jëlal say bagage nu gën a gaawee balaa Sénégal a dal sa kaw parce que xoolal du ñu bàyyi jamais te deuxième vague baa ñëw de non troisième mandat jërëjëf Mbacké Bal jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Bougane Gueye Dany merci beaucoup Assane Aïcha